bismillah ñaanal na leen jàmm yéen mbokki xalam te jii sunu yaatal nu ngi ko bëggoon a jëmale ci càmbar bi diw ñu di ko wax astronomi ci français di ko wax ilmul falak ci làkku arab lii ngay seen mooy déele bii ñuy tudde suuf ngay dund ci kawam di ci dox say soxla moom mu nekk ci ngel mi maanaam jaww ji walla air bi di naaw di doxi soxlaam di wër jant bi jant bi di wër ci biir liis di tudde xallu ndiggale wi muy la voie mu nekk benn kàmbaar kàmbaar nag boo ko xamul mooy galaxie te mooy lii ngi seen nun nag dañuy wax ni sunu déele bii di suuf moo ngi ci nose jant goo xam ni fii la nekk galaxie muy kàmbaar boo ko xamul mooy li toggale noste yu jant yi noste yu jant yi boo ko xamul moo di ne mboolem biddiw yi ngi seen guddi bu ci nekk daa am ay déeli yu mu àndal ak ay weer weer yi ñooy wër déeli yi jëmmi déeli yi di wër jant yi te mooy biddiw yi ngay seen guddi yépp mboolem ñoom biddiw yi nag ak jant yi wala ñoni jant yi tey jant yi ak déeli yi muy planète yi ak planet neen yi muy déelantaan yi ak comètes yi ak météorites yi ak astéroïdes yi yëpp boo boolee ñooy dajale lenn lu ñu tuddee kàmbaar muy galaxie te mooy niki nii ngay séen ñoom ñëpp dañuy ànd di fii ci jaww ji waaye ni mu amee sunu kàmbar gi ñuy tuddee xàlluwu ndiggale wi muy la voie lactée am na yeneeni kàmbaar yu gën a bari yu nekk ci kaw te kàmbaar bu ci nekk li mu dajale ci ay jant rek muy biddiw yi ngay seen ci guddi ay milliards milliards yu kenn xamulub limam la ku dut yàlla te li nga ciy seen mooy fi sa bët yam waaye fa sa bët àggul moo gën bari te li bari bari ñoom ñëpp noonu la ñuy ci jaww ji ba la neex yàlla te kenn du ci mbëkkanteeg moroom ji lu dut lu neex yàlla bu ci nekk itam day sore moroom ya ay milliards milliards milliards kilomètres maanaam gaawaayu li ñu tuddee leer muy vitesse de lumière ay ati ati vitesse de lumière la ñuy soreñee sunu jant bi nag benn la ci biddiw yu mel ni yi ngiy seen guddi yi moom sunu jant bii nag ay suuf di ko wër ñu koy wax ay déele nun nag déele bu nu nekk mooy déele bi yor wér gu bëri wi te nga koy seen niki nii lay wëri jant bi ci jamono jooju nag weer wi di ko wëre niki nii nu bëgg leen andil ay leeral ci diggante yenn ci téere yi nekk ci sunu biir no seggante diggante weer wi ak ge si ak jant bi waaye diggante yeneen déeli yi lu mel ni ki Jupiter ak Mars ak yi ci des lënkaloo ginu am wala li dox seen diggante ak sunu jant bii yaa ngi ñuy topp sunu càllale gii di xalam TV ñu di la làkkal lépp ci làkku wolof wu leer nañ te bawunu benn branche benn bànqaas ci xeeti xam-xam yi soo bëggee nag saa su ñu di la mën a jotal ay vidéo yu am qualité yu gànjaru da ngay nangu di examen maanaam bëgg te itam nga abonné bu fekkente ni abonné goo woon waaye nga di ko partagé lu muy gën di am doole ba mbooloo mi di ci man di jot vidéo yi di gën di mën a am qualité ñuy gën di yaatal gëstu yi ndax dañuy liggéeyal yàlla ci jaamam ñii waaye di ko jaari ci xam-xam lu mbooloo mi gën a bari nag ci la liggéey bi di gën di jàppandi ndax ci la yaatal gi di gën di yombe saa soo nammee njañse nag ngir bëgg a laaj wala lu ni mel wala wax sa xalaat bul bind turu kenn maanaam bul bind aw tur soo bindee aw tur wala nga dugal site internet dañ koy infiltrer maanaam du feeñ ci commentaire yi. sunu leeraluk tey noo ngi ko jëme woon ci jëmmati kaw yi muy les corps ak seenug soriyante jàppal nu wat yi di ñëw ngir digg gi yomb ci yow saa su diggee ñu ni bayalu kaw li muy tekk mooy espace aérien kàmbaar soo ko diggee mooy galaxie ci français soo diggee diile mooy planète astéroïde wala météorite mooy ndoj kaw déelantaan mooy planète neen weer mooy lune biddiw mooy étoile jant mooy le soleil wala soleil ngel muy firi air ci français niki noonu itam jaww mooy atmosphère lii mooy suuf si lëli di weer wi moom moo ngar dajjoo wër suuf si moom nag jamono ji muy wër suuf si suuf si mu ngi wër jant bi ci jamono jooju itam jant bi moo ngi wër ci biir kembar gi biir kàmbar gi ñuy tudde xallu ndiggale wi muy la voie lactée diggante weer wi ak jant bi ñu di la wax ni la moo ngi nekk trois cent quatre-vingt mille kilomètres ñetti téeméer ak juróom-ñetti un virgule trois seconde lumière maanaam tey ak ceeñeer bu déparé woon ca weer wa jëm ci suuf si balaa mu àgg dana def benn xos ñett ci ay seconde ci kilomètre maanaam un virgule trois seconde beneen déeli bii di mars ñu wax ni mooy déeli bi gën a jige déeli bii di suuf ci biir sunu noste jant bi digganteem a suuf ñuy wax ni day nekk juróom million jàpp ñeenti téeméeri million ci ay kilomètres maanaam cinq cent soixante-six à quatre cent millions ci ay kilomètres jëmmi gaawaay bi diggante bi bu ñu ko nattee ci lumière mu nekk trois à vingt deux minutes ñu wax ni mooy délai bi gën mag ci délai yi di juróom benneelu wala juróomeelu taxawaay muy cinquième position bu ñu jógee ci jant bi mu ngi toggaloo ci ay xeeti gil muy gaz ak ay xeeti poussière muy pënd nekk diili bu làmboo ay lëmës muy ay couche yu limu diili bii Uranus mooy bi gën sedd ci diili yi ñuy xam ne ni dafa yore melow gil nga xam ni tey boo ci sànni woon dara day pëtëx mu nekk déele bu yëngu bokk ci na sunu jant bii Vénus mooy planète di déele bii ngay seen ñu wax leen la mook sunu suuf si dañoo nuroo ay jagle ci tolluwaay ak ci yenn ci toggale waaye moom bronze mooy li ko toggale mu nekk déele bu jige jant bi itam tax mu am jagle yi ndëgëre yi mooy ñaareelu déele bi bés jóge ci jant ba waaye may juróom-benneelu déele ci ngandaay muy rëyaay déele bi di Saturne ëppee déeleb suuf si luy tollook juróom-ñeenti yoon digganteemu suuf si ñu mën koo gam-gamle ci un milliard de kilomètres et quelque mu nekk déele boo xam ni melaw gil la làmbool ak glace suñu nattee nag digganteem ak suuf si dañu koy mën a gam-gamle ci un am na wenn weer wu koy wër waaye itam am na lu mel ni ki xeetu niir woo xam ni moo ko wër te mooy wurngal bii ngay seen déeli bii di mercure muy déeli bi gën a jege jant bi mën nañu gam-gamle digganteem ak suuf lay toll ci quatre vingt mu nekk diire bu ndëgëri muy déeli bu dëgër ngir jege gi mu jege jant bi yëgóoram itam muy température am nekk température bu yéeg ngir tàngooru jant bi déli bi ngay séen di Neptune ñu wax ni mooy juróom-ñetteelu position bu ñu ko nattee wala bu ñu jógee ca jant ba ci biir sunu na seggant bi mu nekk déli boo xam ne mu nga toggaloo ci hydrogène ak hélium ñoom ñi ñu la tuddal ñëpp nag ñoo ngi ci biir kàmbar gii di la voie muy xallu ndiggalew yi moom voie lactée nag yaatuwaayam dañu koy gam-gamle ci quatre milliards d'années de lumière maanaam boo jóge woon ci barab gaawee ni leer di daw ñeenti milliards yi at noonu la wax ni noonu la yaatuwaayam waaye ñoom ñëpp dañuy naaw ci ngel mi maanaam di fey ci jaww ji waaye itam kenn du ci laal morom ji waaye sore ñanan ay diggante yu sori ñu di ko tudde gaawaayu lumière muy vitesse de lumière lumière gaawaayam ci bépp seconde mën na cee daw ñetti junni kilomètre lii muy diggante kon jant bi ak weer wi ak suuf si ak yeneen délai yi jàngin jëf